dikkati naa jaxannama goo xam ni faatoogoo le quotidien le quotidien ne ma lii mooy li ki ñu dupee borom ñaari turi dund daanaka diwaanu Kaolack turbine yéene kaay ne ko déet moom waa ji sant faal nga xam ne daanaka Kaolack dañu mànkoo ni ab borom ñaari tur la dafa faatu libération yéene kaay ne ko turbine may ma ndax ba ñu ko yóbboo Touba waa Touba ci boppam ñoo ne duñ ko fi denc ndax nag dañoo am ay xibaar ne waa ji borom ñaari tur la turbine yéene kaay ne ma ñu jagat jagatee néew bi daal di andi ca leew na nag daal di denc source aane ko déet laataa leew na am na nag sa gunu dupee malum dem nan fa ñu dàq leen it yéen i kaayib bi ne ko waaye denc nañ ko diwaanu Kaolack te sa gug lew na ya policier daal di taxaw waaye naka la policier daal di wane ginnaaw xale ya daal di defub ndiiraan daal di dugg ca biir sëg ya takk buum ca bopp ba takk buum ca tànk ya daal di koy diri génnee ca almeer ya tribune yéen i naan maan xale yi roñ-roñeeg moom ba ca digg taliba jël ñax mu wow teg ci kaw néew bi booba ma nga xolleeku daal di néew ba maar day daal di koy taal ma la lakk ba mu jeex tàkk tàkk tàkk tàkk l'enquête quotidien naan kon man sama laaj mooy ban Sénégal la ñu nekkati tribune yéen kaay naan kon en tout cas moom yaayu xale bu góor bii naqar ci boppam la daal di yëg ba am crise cardiaque ci noonee la daal di jaar daal di faatu yéen kaay bi des médias naan man procureur daal dinay xamle ni ubbi nañ ci ab l'enquête képp koo ne taqee nga ci mbir mi daañu la topp fa mbaxana doonee benn réew mi quotidien man campagne gi ñuy xeexu cancer gi octobre rose jeex na tribune yéen kaay naan man lu toll ci junni juróom benn téeméer ñeent fukk ak ñeent ci activité amal nañ ko fukki junni ak ñett ci ay soxna nag ñu dépister leen juróom-ñeenti téeméer juróom fukk ak ñett am ay lésions yoo xam ne daanaka cib cancer la jëm téeméer ak ñett ñoo xam ne ay cas suspect la ñu jël leen en charge junni ak ñeenti téeméer juróom-ñaar fukk ak juróom benn ci ay xale yu jigéen ñu ñàkk leen ngir duñu am cancer col de l'utérus booba bugaan géy dani ma ngay kaas wér gu yaram ci bés bi nga xam ne ña ngi doon xeex ci àdduna wërngal këpp dibéer bii lu jëm ci AVC moom géy ne Sénégal daal jafe-jafe bi bokk na ci fii ci 2023 amuñu lu dul juróomi lal yoo xam ne moom mën a dalloo réanimation neurologique ñi am AVC di roñ-roñeeg seeni malade di wër place fii ci ndakaaru ak ci biir Sénégal te la cay mujj nag du neex ndax nag daanaka ñàkku bakkan moo cay daal di am yoor yoor yéeni kaay naan man communauté international ma ngay waxtaanee AVC fii ci réewum Sénégal bugaan gay dañuy joxoñ baaraam ak tuuma nguur gi direct news naan ma leen di xamal ne bés bu yàlla sàkk dee ñu tànqal nu te liggéey ba nga xam ne doon nañ ko def ngir yeesalaat service bu neurologie bu faan dara yembu liggéey ba waaye France daal di xidéem antenne quotidien naan bugaan na nga naan li am ci Sénégal ci wàllu wér-gu-yaram amul fenn Walf quotidien naan koon mu boole ca nag daal di defi révélation yoo xam ni maar day taali booba ci la le mandat yéeni kaay naan maan lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ci parrain jaagar jaagari na moom kese daal di koy wutal boppam moom bugaan gay dani ca diwaanuk Touba le point actu naan maan ay signature am day ma ngi koy yokku ca diwaanuk Touba googee waa grand place naan maan ma nga toll ci juróomi téeméer ak juróom fukk ci parrain yoo xam ne daal dinay tàbbi ci listam moom Cheikh Bougane donte nag politique bi aay nan ko ca Touba daal dinay def kéntalaay kattanam ba dajaleel parrain yi waa sa bopp boobu campagne bi ku nekk fa nga far turbine yéene kaay naan maan ca Kaolack Njaay Rahma daal dinay mobiliser soxna yi gannaaw ba mu leen jàppalee sàkku si ñoom ak jàppaleeg président Macky Sall bennoo daal dina waaw Njaay Rahma foofee ca Thiès Nord yéene kaay bi dee média bi di ma xamal ne Malay Diop financé soxna yaak ya ngir na xamal leen njëriñ ak solos président Macky Sall moom président Macky Sall moomee Vox Populi naan maan avenue mel ni kuy sànni ay traag nag naan ñun jàmm lañ woote Abdou Karim Fafana ci l'enquête ko di naan jàmm joojee day buñ ko bëggee ci réewum senegal daanaka coow li coow li moom moo di daal di bëgg continuité ci réew mi waaye tam xool ka nga xam ne moo ni may jàmm ñu ànd ak moom l'évidence naan man taxawal nañ mouvement jàmm ak taw feex yaaye an daal di koy jiite ñu taxawal ko ca diwaanu pikin yaaye naan sama gént gi mooy Sénégal goo xam ne ndaw ñeeg soxna yi niki noonu it waa diaspora bi daanu mën a ñëw ci réew mi dund ci anam woo xam ni te loolee ndax mënees naa nekk ci Sénégal gu amadu Ba nekkul yéenekaay bi di ma xamal ne may mun a si Maïmouna Sissoko Khoumay daal nay mobiliser ca Parcelles ni plan action prioritaire bi nga xam ne doxal nañ ko jaaree ko ci e. may mun a naan lii nag mooy wane jooyante koomu réewum Sénégal ëllëg njiital mouvement national bu enseignant républicain yi xam le ni moom ak i àndandoom ci mouvement bi nañ ko yàgg defee fi mu toll nii la ñu fas yéene nangu dogal ànd président Macky Sall ci choix ndax nag moom président Macky Sall loo ci mënti waxi ku xippi fii ci réewum Sénégal xool ay réalisations canalisation Isaaxa Diop ministre bi dénk wàllub inondation di maire ca Pikine daal dina dajaleel ay parrainage Amadou Ba taxawal concept boo xam ne ñu ngi ko duppee ministre chez ñaar fukk ñaar ci délégué yoo xam ne marché bu département bu Pikine la amal mobilisation ci maison de la femme ba diggante promogem ak yeneen i activité commerçant yi ne président Macky Sall daal daanaka sigil na leen l'évidence yéene kaay mel ni ku naan maan gannaaw ay jàmm ca Jurbel day ministre Dame responsable jébbal ko la ñu dajale woon ci parrainage sargal ko ne ko yéen wi diis na waaye nañu jàppale président Macky Sall daam naan kër gi sama kër APR sama njaboota kon nañu fas yéene ngémbul président Macky Sall jaarale ko ci Amadou Ba tribune yéene kaay naan kon yéene ngi ngémb ku naxaree ngémb waay moom nguuruk Sénégal ci boppam mbaadu nag mook APR daanaka dañuy wure wure woo xam ne am ci ndam day jafe-jafe lay doon ndax nag Sénégal ñi ngi xeex xeex goo xam ni maar day taali état bi day doxal nu ko neexee maa ngi dund jaxat na ma ci réew mi la ñu def Malick gàkku def ko Khalifa Babacar Sall def ko Bougane Gueye Dany wane na ni politique gu Sénégal gii daanaka APR mooy doxal opposant yi moom ñu tegee leen fële maître Ngagne Demba Touré ci yoor yoor yéene kaay ne opposition bi day mani la bu nu booloowul xoolu ñu fees féete xeexuñu ba daal di ñakk élection moom daanaka dañ koy dégg rek El Assane Sall ci tribune yéene kaay naan kon ñu leen koy wande de leen di xamal ne fi mu ne Amadou fiy doxal yéen du dara te loolee de ko seetaanee maar day taale mën na jóge ci réew mi vox populi naan maan barki boo njaay moom Amadou Ba bokk Pastef émission la ñëw ci Sen TV génn ci ndumbelaat ñu daal di ko ni niib daal di téye fi mu toll nii ma nga ca section de recherche te Amadou Ba moomee moo waroon yóbbu kalaame Ousmane Sonko CEDEAO ca Abuja la voix du sud ne Ousmane Sonko gën a métti le ndax nag ministre de la justice day ma nga ca tànku juge Sabassi le point ci naan maan booba Lalla Aïcha Fall woote woon na samedi ca Kennedy moom laa la diggante apériste yi nekk Ndakaaru HLM ak Sénégal soobu loxoom ci élection présidentielle bi kofem daal di booloog sama gox sama yitte mu doon benn Lalla Aïcha fas yéene soobul amadu Ba direct news ne ma coow lu coow li ci réewum Sénégal mooy campagne C50 PN xam nga coow li daal dinay andi riir ci réseaux sociaux yi lu toll ci juróomi téeméer ci vidéo andi coow ñeen fukk ak benn ci million seetaan ko ñetti million ñoo xam ne xamuñu ko woon daal di xam campagne bi fi mu ne moom Abdoulaye Sylla ma nga xam ni sénégalais umpale woon nañ ko fi mu toll nii sénégalais yaa ngi tàmbalee lam-laamee kan mooy Abdoulaye Sylla tribune yéen a kaay naan waaye ñu nekk Sénégal galgal goo xam ni daal état beeg APR loo ci mënti dégg it xamal ni ñi ngi galgal ay opposant moom Malick Gakou kenn ci ñoom ne en tout cas ànduma ak ñoom te yaakaaruma kenn nit ci wotam te la leer ba leer mooy capaa ndaw ga duma ànd ak Amadou Ba turbine yéen kaay naan maan saye soobu nañ ci goo xam ni ñaari fan la juróom benn jàpp juróom ñaari fan ci weeru novembre bii ñu fas yéene banque loxo yi daara yi kawe yi ci boppam fas yéene lompoñ ci réew mi turbine yéen kaay ne ko laaj bi kay moom mooy lii drapeau ci boppam lu mu doon def ci manifestation keroog ba waa F24